الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله لقد شهدت الحضارة الإسلامية حكاما عزاما أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في كل شيء كما قال جل وعلا في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi sunu xutba tey mooy sifaat alxaakim almuslim lan mooy melokaanu buur wala président wala ku jiite ay jullit lan mooy njiitu ku jiite melokaanu ku jiite jullit ñi yan melokaan nga war a yor xam ngeen ne ci l'histoire l'islam islam bind na ay buur yu baree baree baree bari yu jiite nit ñi waaye loolu kamu ca def ca combaxtal ba mooy seyduna muhammad alayhi salaatu wassalaam ndax moom yonent la woon président la woon imam la woon général la woon lépp la boole moo tax mu nekk royukaay ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite jullit ñi ci lislaam histoire islam bind na ay njiit yu baree bari yoo xam ne topp nañu di xeeñtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa mu jaaroon ba mu jiitee jullit yi waaye ba ñu royee yonent bi jaar ci ay tànkam roy ko ci ay jëfam ñoom buur yooyu l'islam tagg na leen histoire bind na seen tur lu ko waral mooy moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen bàyyee kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyati yéen ñëpp ay sàmmkat ngeen kullukum raain yéen ñëpp ay sàmmkat ngeen wa kullukum mas'ulun an raiyati kenn ku nekk ci yéen bés dana ñëw da nga taxaw ci kanam yàlla lañ la doon sàmmloo ñu laaj la ko ci kanamu borom bi tabaraka wa taala mu ne masuliyatul xaakim lii responsabilité njiit buur président bu jiite ay jullit mooy azimul qudra ku war a am kattanu ci ay ndogal la li annaha tataallaq bi suuni diin wa dunya lu tax mooy ñaari xel mbir la war a bàyyi xel ne dafa jiite jullit ñi ci seen wàllu diine waaye daa jiite jullit ñi ci seen wàllu aduna te ñaar yooyu fala budda an yakuna ahlan laha fokk nag ñaar yooyu mu mën ko mooy da ngay jiite nit ñi ci sa wàllu aduna bu dara manqué waaye ci seen wàllu diine nga jiite leen bu dara réer lépp la nga leeral ko lépp nga teg ko ci yoon moo tax mbokk jullit yi jiite jullit ñi du lu yomb li gën a dangereux ci àdduna mooy ki nekk ci kanamu jullit yi jiite leen moo tax boroom xam-xam yi ne dafa war a bokk ci ay melokaanam moom ki jiite jullit ñi itiqaaduhu melokaan ba ca njëkk te yii yi ëpp importance lañu coppati islaam wax ko nit ñi li ëpp solo ci njiitab jullit mooy itiqaaduhu anna sulta taklif wa laysa tashrif li tax tey sunu njiit yi réer sunu njiit yi mënuñoo teg seen tànk ci siraatal mustaqim mënuñu koo teg fa yonent bi tegoon tànkam mooy ñoom dañoo gëm ne ku ñu fal da ngaa war a noos ku ñu fal da ngaa war a bég te kat ku ñu fal yan lañ la yen yen fal ci islam yan la du noos taklif la dañ laa chargé dañ laa togg jëf waaye nekkul tashrif nekkul loo war a tiitaroo nekkul loo war a puukaroo ndax yow gënoo nit ñi su la nit ñi tànnee fal la loolu ngëneel gu la yàlla jagleel la waaye gënoo leen juddu ëppoo leen xam-xam ëppoo leen martaba ëppoo leen doole ëppoo leen daraja waaye yàlla moo la ko jagleel moo tax mu nekk taklif wa laysa bit tashrif ñoom ñëpp ñu ànd ñoom nit ñi jaayante ak yow di dégg sa ndigal di bàyyi sa tere jox la seen mbirum diine jox la seen mbirum àdduna abubakarin siddiq radiyallahu anhu wa ardaahu keloog ba ko gaañi falee yenent bi génn àdduna moo ngi ci morgue bi ñu koy waajala denc jullit ñi jaayanteeg abubakar ñu fal abubakar mu daal di taxaw ci kanamu nit ñi première xutbaam mu ne fa in ahsantu fa ayinuni wa in asatu fa qawwimuni wa in asatu fa qawwimuni atiuni ma atatu llaha wa rasula fiikum yéen mbokk yi dañ maa fal ci yéen waaye gënuma leen su ma jubee jubalee jàppale leen ma su ma dëngalee jubanti leen ma keroog Aboubacar ba mu faloo li la wax dama falu ci yéen waaye gënuma leen su ma jubalee dimbali leen ma su ma dëngalee jubanti leen ma omar ibnul xataab moom ba mu faloo mu ne man raa minkum fi fiya iwijaajan fa qawwimuuni man maay omar tey man la yàlla jox xilaafa gi su ngeen gisee ci man ndëng-ndëng lu jàdd jubanti leen ma fa qaama benn bis mu taxaw moom omar xatiban muy xutba juma fa qaala mu ne in raaytum fiya iwijaajan fa qawwimuuni waay waay bu ngeen gisee ci man jàdd jàdd jubanti leen ma benn waay ci biir jumaa ji ci sàppe yi fa qaama rajulun min almuhaadirin ci ñi teewoon ca biir jàkka ja ca jumaa ji waa ji daal di jóg taxaw qaala fa wallahi law wajadna fiika iwijaajan la qawwamnaahu bi suyuufina ñoo ngi lay waatal ci yàlla yow Omar bis buñ gisee ci yow jadd jadd bis buñ gisee ci yow lu jubut suñu jaasi yi waa ji bocc jaasi yi ci biir jumaa ji ne ko suñu jaasi yi lañ lay jubantee Omar ne alhamdulillah déglu leen Omar waxul ana ana soldaar yi waxul ana gendarme yi waxul ana police yi waxul ana sama garde corps yi omar dafa ne alhamdulillahi allazi jaala fi raayati man yuqawimu iwijaaja omar maa ngi sant yàlla moom mi nga xam ne tey moo def ci biir mbooloo mi koo xam ne bu omar dëngee kooku jubanti ko nii la njiit yi meloon benn waay ñëw na fekk omar toog mu jiite jullit ñi waa ji ne ko fa qaala rajulin li omar ittaqi llaha ya omar Omar di wax rek benn waaye jóg ne ko ragalal yàlla Omar ragalal yàlla ñenn ñu toogoon kenn ne fa ajaabahu ahadul xaadirina bi qawlihi ataquluuna hada al amiri al muminin ittaqillah waaw yow yow amirul muminin ngay wax na ragal yàlla yow yow yaay kan banaan Omar na ragal yàlla Omar ne waa ji noppil Omar ne waa ji noppil waa ji ne pat fa qaala Omar laa xayra fiikum in lam taquluha wala xayra fiina in lam nasmaaha Omar ne waa ji noppil yow dimbali wooma kii naan ma ragal yàlla moo may dimbali xanaa xamu leen ne yéen du ngeen baax su ngeen bañee wax njiit bi ragalal yàlla du ngeen baax mukk ñun njiit yi du ñu baax mukk lu dul ñu nangu ñu wax nu nanu ragal yàlla mbokk yi fan ngeen di amee buur bu ñu naan nañ na ragal yàlla fan lañ koy amee tee buur boo xam dañ koy wax ragaleel yàlla benn bis Omar ibnul Xattaab di séddale ganaimul muslimin yooyu jullit yi daan am ci xeex yi ci xare yi ñu koy séddale ku nekk am benn tisi bu gàtt boo xam ne boo ko ñëwee dana ñëw ba ci say pooj ku nekk ñu jox la benn jour vendredi Omar ñëw bosam ñëw taxaw ci jullit yi di xutba mu ne ayyuhan naas isma'u wa ati'u yéen nit ñi déggu leen déglu leen te ragal yàlla salmaanul farisi daal di jóg ne ko kenn du la déggal kenn du fi ragal yàlla Omar ne lu xew mu ne ko ba ñu ba nga wax ñu yow sa tisi bu gudd bi ba di laal sa tànk yi foo ko jëlee ñëpp yu gàtt lañ am yow nga tegale deux naan ñu nañ ragal yàlla fii kenn du fi ragal yàlla tey allahu akbar salmaanul farisi moo jóg ci biir nit ña ne ko yow omar anta rajulun tawil ku njool nga fan nga amee loo ñaw ba mu mat ñun ñëpp yu gàtt lañ am yow nga guddule kenn du fi ragal yàlla ba nga wax ñu foo ñu jëlee genn wàll gi فوقف سلمان الفارسي الصحابي المشهور الجليل فقال لعمر لا سمع لك علينا ولا طاعة kenn du la fi déggal kenn du la fi topp ba nga wax ñu foo ko jëlee fa qaala Omar Salman lu tax su ma waxee kenn du dégg lu tax kenn du fi ragal yàlla mu ne ko min ayna laka haza sawb foo jëlee yére bu gudd bi foo ko jëlee waxal Omar ibnul Xattaab ndeysaan mu dagg xutba bi mu ne ci biir jumaa ji ndax Omar Abdallah ibnu Omar julli si na ndax Abdallah ibnu Omar mu ngi ci mbooloo mi ñu ne ko waaw mu ne ko wool leen ma ko Abdallah ibnu Omar ne tëll taxaw mu ne ko li ma eggalee sama mbub mi fan laa ko jële mu ne ko maa la may sama bos nga mottalee ko sa bos fan la ñu amatee njiit yu mel noonu njiit yoo xam ne dinañ nangu ñu ne leen lii fu ngeen ko jële lii fu ngeen ko dugal lii nan ngeen ko defee moo tax lislaam mooy dëgg jullit ñi fekk amuñu jul njiit bu gëm lislaam ci ay problème rek la ñuy nekk ndeysaan abu muslim alxulaani moo dugg ci muawiya radiallahu anhu fekk muawiya toog jiite jullit yi mu ne ko sàmmkat bi na nga def président de la république mu ne ko sàmmkat bi na nga def benn waaye ci garde corps yi tëb naan ko président nga naan sàmmkat président bi ne ko bàyyi ko mu wax mu ne ko wallahi sàmmkat nga yàllaa la tànn ngay sàmm jaam ñi yaa ngi mel ne benn sàmmkat boo xam ne dañ koo jox ay xar jox ko ay nag jox ko ay gëléem jox ko ay béy mu yóbbu ko ci àll ba di ko sàmm su rafetelee sàmm ga mu jëriñoo soow mi jëriñoo xar yi jëriñoo ci lekk waaye bis bu ko neenalee bu ñibbisee ñamu doon sàmmal ñëpp nangu seen yëf ñu dàq ko ca xaj dàq ko ca àll ba kon ñi jiite ndeke ay sàmmkat lañ yàlla leen fal ci kanamu jaam ñi ñu war a am melokaan boo xam ne ñu yëg melokaan bu njëkk ci melokaanu ku jiite ay jullit mbir mi du taraanga waaye mbir mi aw yen la aw yen waaye tey Sénégal ku ñu fal rek nga ne oo kii taral nañ ko sa waa kër organiser sabar ak fuural ak xumbal ne la profitool gaaw balaa ngay wàcc ñaareelu melokaanu njiitu jullit an yaalama annaha amaana mu yëg ne lii amaana la kóllëre la ndénkaane la gu ko yàlla dénk wa hiya yawma alqiyamati xisyun wa nadaama yawma alqiyam ak nguur toroxtaange la ak gàcce moo tax moo tax sahaaba bu mag ba abu zarrin al ghafaari radiyallahu anhu wa ardaahu yonent bi dafa bëggoon abazar ku bëggoon abazar la si ay li ñuy doy waar yëpp wala ñi nga xam ne dañ naan rafida lañ rafida rafida li ñuy doy waar yëpp boole wuñ ci sa Abu Zarin il Ghafaari Abu Zar yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis mu ne Abu Zar ne ko yonent nañ ma fal déglu leen Abu Zar ba mu ne yonent bi nañ ma jox ndombo tànka fal ma li ko yonent bi wax yaa Aba Zar innaka daif innaha amanatun wa innaha yawma alqiyama xizyun wa nadama Abu Zar yow waaju waajo waaju faible nga yow amoo doole yow mbirum nguur attanoo ko xanaa xamoo nguur yow Aba Zar yawma alqiyam gàcce la ak réccu yawma alqiyam gàcce la ak réccu kon tey nguur gi ñuy reyante ci mbedd yi ah di tamantaay dëmm lan moo ñu ko jaral parce que yëg ne ci ñun teraanga la kese waaye bu ñu yëgoon ne yen la kon du egg foofu ñaareelu melokaanu njiitub jullit mooy mu yëg ne li amaana la inna allaha yaamurukum an tuaddul amaanaati ila ahliha fa ida hakamtum bayna annas an tahkumu bil adl inna allaha nicma yaizukum bih inna allaha kaana samian basira borom bi nee na yëg leen ne ndénkaane laa leen dénk na ngeen ko mottali jox ko ña nga xam ne dafa war a yegg ci ñoom su ngeen di àtte diggante nit ñi na ngeen àtte ci ñoom ci maandu yàllaa ngi leen di waar ndax yàlla day mu ngi dégg mu ngi gis al imam abu jaafar at tabari firikatu alquran bu mag boobu nga xam ne tafsir na quran nee na aaya bii man dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo nangu ne yàlla nga ko wàcce ci kaw nguur yi ci kaw buur yi su fekkente ne ñoom ñi jiite jullit ñi su fekkente ne joxe nañ kóllëre gi ca nañ ko war a joxe su fekkente ne joxe nañ àq yi su fekkente ne sàmm nañu maandute su fekkente ne séddale nañu mbir mi ba ñépp jot nañu yëg ne aaya bii ñoom lay waxal omar ibnul abdul aziz rahimahullah dañ koo fal ne ko yow yaay jiite jullit yi mu dugg néegam uuf ñaari loxo yi toog di jooyi jabaram bu tudd Fatima daa di dugg fekk Omar di jooy mu ne ko ah yow ñu fal la nga war a noos war a kontaan war a reetaan nga toog di jooy ëmb sa ñaari loxo di jooy ëmb say ronkoñ mu ne ko waaw yow da nga xamul lu xew way haka ya Fatima Fatima yal na nga alku xanaa xamoo qad wullitu min amri bi amri hadihi l umma xeet wi di xeetu muhammad tey man la yàlla def ma jiite ko mu ne rawuma leen ëpp ma leen daraja ëpp ma leen xam-xam lan moo tax ñu fal ma pour lan pour ma xalaat ñi ñàkk nan la ñuy amee pour ma xalaat ñi feebar naka la ñuy fajoo pour ma xalaat ñi rafle naka la ñuy soloo pour ma xalaat jirim yi naka la ñuy dundee pour ma xalaat ñi seen jëkkër gaañu naka lañ leen di toppatoowee pour ma xalaat ñi tooñ naka la ñuy delloo seen ak pour ma xalaat tooñkat yi naka la ñuy téye seen loxo pour ma xalaat jaam ñi naka lañ leen di delloo seeni ak naka màgget yi naka la ñuy dundee borom njaboot gu bëri gi naka lañ koy toppatoowee alal ji naka lañ koy toppatoowee ba kenn du ko yàq dëkk bi naka la ñuy def ba mu am sécurité naka la ñuy def ndax ëllëg lii yëpp bu ma ko deful danaa taxaw ci kanamu yàlla yowmal qiyaamati tontu laaj yii fan la ñuy ametee ñu mel nii koo xam ne dañ laa fal pour nga toppatoo ñi feebar ñu faju ñi xiif ñu lekk ñi amul fu ñu fanaan ñi amul fu ñu dëkk ñi taxawaalu ci mbedd yi ñàkk sécurité bi yooyu dañ leen a fal Omar nee na dañ maa fal pour lii ma réglé ko su ma ko réglé wul ëllëg danaa taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala yawmal qiyaamati yàlla laaj ma ma tont te su ma ko deful danaa tont kon kii mooy Omar ibnu Abdul Aziz ñetteelu melokaan ci melokaanu njiitu jullit an yakuna naasihan li ummatihi dafa war a nekk kuy laayo biir xeetam yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadis muqal ibnu yasaar mu ne ma min abdin istaraahu llahu rayatan falam yuxtaha bi nasiha illa lam yajid rahihata aljanna képp ku ñu fal nga jiite jullit ñi sàmmonte boo ak li tax ñu jiite la yërëmoo jullit ñi laaye woo leen biir nee na ëllëg yowma alqiyaam doo mos xetu aljanna aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ñeenteelu melokaan ci ku jiite jullit yi mooy an yulaazima al adla fi kulli ahwaalihi wa aqwaali ku jiite jullit ñi da ngaa war a sax ci maandute ci say xew-xew ak ci say wax ak ci say jëf borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayuha alladina amanu kunu qawamina bilqist شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تدلوا borom bi tabaraka wa taala nee na yéen ñi gëm yàlla nekk leen ñu maandu ñu jub xoj seede yàlla bu fekkente ne dëgg taxaw na yàlla rek na la gënal walaw ala anfusikum donte ne sa bopp la na dëgg xew mu ne awil waalidayni même bu fekkente ne ñi ngay seede sa ñaari way jur la na dëgg taxaw wala mu nekk say jege ñaale nee na bu fekkente ne ñooñu dañoo am alal wala ñu ñàkk bul jeng mukk jëm ci ñi am alal waaye xalaatal ëllëg yàlla tabaraka wa taala fallaahu awla bihima yàlla nga war a péeteel bu ragal borom alal bi ba jox ko dëgg comme li xew tey ci jamono tey ku néew doole ak ku am ku am doole ku néew doole bu ñu taxawee ci kanamu yoon ki am doole lañ naan yow la borom alal bi tey bu taxawee tey ci kanamu yoon ak faqiir ki am alal lañ naan yow la borom bi nee na fallaahu awlaa bihima yàllaa gën a yey ci ñoom borom bi nee na falaa tattabiul hawa bu leen topp caaxaan ba mu tere leen a maandu an taadilu na ngeen maandu ngeen ragal yàlla tabaraka wa taala borom bi waxaat ci beneen aaya mu ne fa wa iza qultum faadilu walaw kaana za qurba wa bi ahdillahi awfu su ngeen di wax mbaa ngeen di jëf na ngeen maandu lu mu jege jege jege jege lu mu la jege jege jege ragalal yàlla borom bi nee na wa bi ahdillahi awfu matal leen kóllëre yàlla borom bi waxoon na daawud nga xam ne yonent la nekk buur yaa daawud inna jaalnaaka xalifatan fi l ard fahkum bayna annaas bilhaq wala tattabii lhawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yudilluuna an sabilillah lahum adabun shadid bima nasuu yawma alxisaab yow daawud man yàlla maa la fal nga jiite jaam ñi maa la teg ci kaw suuf nga nekk buur atteel nit ñi ci dëgg bul topp bànneex soo toppee bànneex da ngay sànku ci yoonu yàlla ñi nga xam ne dañoo sànku walis yoonu yàlla borom bi nee na dinaa leen mbugal ëllëg yowmal qiyaam ndax dañoo fàtte dajeeg man kon mbokki jullit yi borom bi tabaraka wa taala wax nañu wax joo xam ne war nañ ci bàyyi xel àdduna bañ ñoo jay ba nit ñi nga xam ne ñooy jiite jullit ñi ñu xam fu ñuy seen teg seen tànk ndax nguur day jeex benn nguur dong moo fi sax mooy nguuru yàlla tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na juróom-ñaari nit a ngi nii yàlla dina leen keral yowmal qiyaam kan la ci njëkk a wax imaamun aadil njiit bu maandu ëllëg yowmal qiyaam bu yàlla wàccee jant bi ba mu tiim nit ñi seen yuur yi bax nee na keroog njiit bu maandu woon du ci bokk mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne njiit bu maandu amir bu nga xam ne dafa maandu day mel ne al abul xanuun bàyyi ju lewet ala waladihi ci doomam yasaa lahum sagiran dafay jëfandikoog ñoom jëflanteeg ñoom comme ay xale wa yuaamiluhum kibaaran daf leen di yërëm bu ñu magee moo leen di utal lu ñu dundee moo leen di sàmm moo leen di yiir moo leen di aar loolu mooy melokaanu njiitu jullit bu ragal yàlla bu maandu juróomeelu melokaan an yaltazima al mabda assura mooy lépp lu muy def na diisoo na diisoo ak ñamu koy defal lépp lu muy def na leen laaj lépp lu muy def na leen woo ndax lii baax na ci réew mi ndax lii du yàq dëkk bi ndax lii du yàq pas-pas yi du yàq diina ji du yàq jikko yi ba ñu xam ne lii baax na ñu dog koo def waaye njiit goo xam ne dañuy xëy rek di valider ay loi yoo xam ne kenn xamul fu ñu ko jëlee yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp. mbokk yi dafa am benn waay boo xam ne dafa romb benn dëkk dëkk bi dañoo ñàkk buur lu tax dëkk bi ñàkk buur. mooy ku gouverner ba pare rek dañ lay yóbbu ci benn désert ci benn sahara daal lay sànni foofu nga dee ku jiite dëkk ba rek boo paree cinq ans yi ngay def wala dix ans yi ngay def dañ lay yóbbu ba ci sahara bi rek daal lay sànni foofu ñëwaat dëkk ba ñibbi yow nga dee foofu. léegi nag ñu dem ba kenn nangootul jiite dëkk ba kuñ ne kaay mu ne mu doy na kuñ ne kaay mu ne doy na benn waaye romb leen ndeysaan ñu toog di réunion mënuñoo am ku jiite dëkk bi yëpp génn nañ ñu nga ca pénc ma ñu ngay ut ku leen jiite waaye kuñ ne yow rek mu ne baax na waaye ñu ne lan la ñu ne ko ñun président la ñuy ut ku ñu jiite mu ne lan mooy seen problème ba amu leen ku leen jiite ñu ne ko ku jiite boo jeexalee ci saxaraa bi lañ lay sànni nga dee mu ne man def leen ma président gaay ne ko déggoo li ñu wax de mu ne lu ngeen wax ñu ne ko soo jeexalee sa mandat ci sahara bi lañ lay yóbbu nga dee gisoo yax yee mu ne waaw ñu ne ni ñu sànnee ñee lañ lay sànnee mu ne baax na yóbbu leen ma gaay yi daal di koy fal mu nekk président mu tàmbali ak ñoom liggéey bi defar dëkk bi yërëm miskin yi toppatoo jigéen ñi yar xale yi defar njàng ma defar wér gu yaram nga lépp luñ doon jooy mu defar ko mu defar dëkk bi yëpp gaa yi bëgg ko lu raw ni ñu bëggee seen bopp ñëpp bëgg ko muy dem ak ñoom di dem ak ñoom di dem ak ñoom mbëggeel gi di yokk liggéey bi yokk dëkk bi lépp a normal mu dem ba mu des ay app ay weer mbir mi jeex gars yi commencé am naqar lu tax parce que xam nañ ne kii dañ koy sànni ci mbedd mi mu dee càll ba désert ba fa lañ koy yóbbu ñëpp triste koo gis rek lan la ah suñu waa ji de ay weer a ko dese suñu waa ji de semaine a ko dese suñu waa ji de ñetti fan a ko dese suñu waa ji de tey lañ koy yóbbu affaire bi jeex ñu ñëw taxaw ne ko ñëwal mu ñëw gars yi daal di koy yenu jëmale ko ci Sahara ba ca désert ba ba ñëwee ba yegg ci désert bi gisuñu désert ñu ne waaw ana àll bi ñu doon sonni sànni buur yi ndeke defar na foofu foofoo raw li mu defar dëkk bi gars yi ne ah kii kat buñ ko sànnee fii day noos nañ leen ko delloo dëkk ba mu nekk président à vie fañ ko waroon sànni fa la njëkk a defar désert la àll la woon mu defar ko ba mu ne booy doo ko defar dëkk bi bi gars yi ñëwee ci Sahara bi ci àll bi di ko sànni si ñu fekk da koo defar ñu ne ah kii kat buñ ko fi sànnee moom fii pale la fii àjjana la kon kaa leen koy delloo dëkk ba rek waa ji daal nañ leen ko def président à vie parce que amatul àll lépp la defar aka neexoon suñu président yi di def noonu defar lépp ba nga xam ne dara du fi xew lu baax rek mbokk yi lii mooy lislaam lii mooy diine islaam lii la fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi lii la ñu yonent bi yar lii la fi aboubacar bàyyi woon lii la fi umar bàyyi woon lii la fi ousmane bàyyi lii la fi omar ibnu abdul aziz doon def lii la fi seydina ali defoon mooy defar dëkk bi ba ali ibnu abi talib bi mu nekkee président de la république dafa am benn yahud bu sàcc mbubbu koŋam ab jullit sax moo ko sàcc dem jaay ko ab yahud omar ali topp mbub mi ba xam mu ngi ci kër yahud bii mu daal di koy yóbbu tribunal te moom mooy amirul muminin mu ñëw ne mbub mi maa ko moom ci kanamu tribunal bi amir bi ne ko juge bi ne ko kuy seede mu ne ko sama doom ñu ne ko doom motul seede te moom mooy président ñu ne ko doom motul seede waxal keneen mu ne ah wallahi maa ko moom kon comme am nangu leen sama doom seede na xam ne ne maa ko moom kon ma giñ ci yàlla ne maa moom mbubb mi ñu woo yahud bi foo jëlee mbubb mi mu ne mbubb mi maa ko moom ali foo jëlee mbubb mi mu ne mbubb mi maa ko moom ah ñu ne ali luy sa dalil mu ne sama doom ñu ne ko doom motul seede yow it utal keneen amir bi daal ne jóg leen dem yahud bee moom mbubb mi yahud bi daal di taxaw daal ne allahu akbar walaay seen diine jëy dëgg wallahi mbubb mi moomu moo ko dañ koo sàcc jaay ma ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah il faut ñu génnewaat taaru lislaam xam ne jukku jiite ay jullit da ngaa war a am yërmande ci ñoom da ngaa war a xool ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam jiitee woon nga jiitee noonu mbokk jullit yi bu ñu paree julli comme nuñ ko faralee di wax rek ñoo ngi fi ak juróomi ordonnance ñooñu moom ko yëpp ñu ngi ci biir jumaa ji toog te ku leen gis dina xam ne ñii yeyoo nañu ndimbal ku leen gis bu doon sa mbokk doo añ doo reer lu dul nga dimbali leen comme ñoom amuñu ku leen dimbali julli di la ñu yor nañu jaayanteeg suñu borom rek bu nu paree incha allah lu nu fi mën a bàyyi pour ñu séddale leen ko ñu def ko ngir yàlla tabaraka wa taala ñu ñaan yàlla mu nangul nu ko allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا